salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi ziar ñëpp di delloowaat euh, ziar euh, lu bayti bi yëpp jullitu àdduna yëpp jullitu Sénégal yëpp ci bés bu tedd bi nga xamante ni dafa tombeek tey àjjuma suba mooy li nga xamante ni moom mooy gàmmu gi juddub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu koy amalee fii ci Tiwaawan ni ñuy wax rek mooy taalibe yi namoon nañu ñëw ci dëkk bu tedd bi taalibe namoon nañu ñëw jàkkaarloog jumaa ju tedd ji. jàkkaarloo ko moom suñu maam El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu ak tamit suñu maam Babacar ak ñeneen ak ñeneen kilifa yi fi nekk mais xalif bi Serigne Babacar Sy Mansour yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér taalibe yi namoon nañu Tiwaawoon moo tax affluence macha allah julli nañ xadara ba pare nag léegi nag ñu xool ñenn ci taalibe yi naka la ñu dundee tey euh, gannaaw bi ñu namee woon ñëw ci Tiwaawoon namoon nga namoon nga xadara tey. waaw namoon naa ko trop sax wax dëgg yàlla xadara moom macha allah namoon naa ko moo taxee tey dama a ñëw. am place pour xadara. ban ban nga ñëw pour xadara. ma parce que ñaanaa fi ay 4 heures daal laa ñëw pour préparer pour ñu am place. xat na trop. Ah. xat na trop wallaahi xat na trop waaye neex na nag macha allah ndax duñ ko gëj duñ gëj ci waawoon. ñetti at presque ñetti at. Hmm. moom bul presque ñoom ñetti at. Hmm. wax dëgg yàlla. maa ak sama gars yi ñoo ànd grand mu ngi nii nag. waaw sax loolu. di bërëb bi ci boppam lañ namoon. Hmm. bërëb bi bopp moom lañ namoon. wallaahi doon loo xam lu sax ci xol yi fu mu nekk nii xol yëpp naat na. loo hmm. xam yëpp naat na ah. ban dëkk ngeen jógee Richard Toll. Richard Toll waaw. kañ ngeen bi ñëw. ñëw nañu jeudi dernier jour bourde bi. waaw ci la ñëw. lan ngeen jàng ci bourde bi. jàng jàng euh, lu bari daal mënuñu ko wax. Hmm. lu ñu manqué woon ci trois jours yëpp. doon nañ ko jàng mais matul lu ñu lépp mais def nañ ci lu ñu mën daal. ba bàyyi ba bàyyi la nga lool sax lool lool gannaaw bu ñu santee yàlla julli si yonent bi ñoo ngi sant suñuy ñaari waajur di ñaanal sëñ Babacar si sëñ Mansour yal na leen yàlla yokk seen leet yal na yàlla wayfal suuf seen kaw e ñoo xam li ñu bëgg si xadara bi yal leen ko yàlla defal nun e namoon nañ leen lool namoon nañ fii lool wax dëgg yàlla li lu ñu manqué woon la lu ko waraloon nag mooy mbas mi mm. mbas mi fi am yal nag fi yàlla jëlee yal nag fi yàlla jël tamit sayyidina Muhammad mais nag tariixa Cheikh moom sa kaw sa kanam rek incha allahu rabbi yal na yàlla defal xéwal. yaay booy ñaari at gàmmu si leen namoon ngeen ci waaw. namoon nañ ko lool macha allah. Mm. dañuy sant yàlla di julli si yonent bi di ñaan si yàlla yàlla ñu yàlla taas si barke sëñ Babacar. xadara bi macha allah dama egsi rek tombe si laa daal rek daal di toog macha allah di ñaanal njaboot gépp nag mboole mu njaboot ñu ngi leen di ñaanal si yàlla yàlla yàlla defal leen jàmm. tey yéene bi lan lay doon ci Sénégal. doolu lay sant rek xanaa Sénégal am soppeeku ah dund gi wàññeeku dund gi neex macha allah daal doolu lay sant rek. di gën di sant. incha allah jërëjëf waay incha allah rabbi maa ngi fi maa ngi sant yàlla bu baax man maa ngi jóge ba Louga. waaw ñëw Gàmbi si. ñëw ci Tiwaawan wallaahi. tey da nga fekk ji ñëw waa fekkee naa xadara waaye. nga fekkee xadara tey ñaari at nga gëj a xadara. waaw xanaa sant yàlla rek. julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax nii rek àdduna bi moom nii rek lay tëddee. waaye Sénégal moom nañ sant yàlla bu baax ndax am na lu ñu yàlla may. tam maa wax si télé nag mais maa ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla borom rawdu bii yàlla ñu ko yàlla fayal. di ñaan maam Seex Seydi Haaji Malick yàlla ñu ko yàlla fayal tax na ba ñun ndaw ñi réeruñu ñu ndaw ñi dofuñu tey jii bu waxtu julli jotee balaa balaa ñuy nodd sax dañuy jug jàpp ndax xam na ñu julli la ñuy def ñu sant yàlla bu baax di julli ci yenante bi tey nag di wax li may wax àdduna bi yëpp bu ñu bëggee réew mi jàkk comme li oustaz Pape Hann di wax dañuy doxee ni yonente bi daan doxee di dundee ni yonente bi daan doxee bu ñu bëggee yonente bi dañ koy roy nit nag boo koy roy doo ko roy si làmbi da nga koy roy si jëmmam roy ko si jikkoom roy ko si léppam képp ku xamante ni nii rek bàyyi nga sa yitte yëpp bàyyi sa famille bàyyi sa njaboot ñëw fii sa yaakaar fii yàlla bu mu tas ci barke baaba Babacar Sy sama xalifa maalik nag maa ngi koy ñaanal yàlla na dund bay tàntal nit ñi ñuy ñëw di gàmm si sama Serigne Babacar maa ngi ñaanal sama borom kër sama famille yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di kontaan ñëpp di ñaanal suñu sëñ Babacar Sy Mansour yàlla yàlla dëgëral taxawaayam te guddal fanam naal bu mu naalu maama bu mu toog yàlla na ko àggali ci barke sëñ Babacar Sy. waa maa ngi fi. maa ngi si jàmm maa ngi si jàmm ñun yaraax lañ dëkk. yaraax même Dakar yaraax de nga ma yow. waaw waaw jege kañ ngeen ñëw coono bi ren dafa mel ni ki nit ñi dañoo ñëw wuy ak doole parce que dañ namoon dëkk bi. waa dañ ko namoon nag. Hmm. ba pare xër teg ci. Hmm. di ñaan yàlla yàlla may ñu fekk ay gàmm yi baree bare ci barke yonent bi yàlla fayal ñu sëriñ Serigne kër mii ndax ñun amuñu ko dul moom ndax wax dëgg yàlla ci ginnaawam la ñu judd waaye defe naa ne ñoo ko gën a bëgg sax ñim ñu ko fekkee dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu fekke ay gàmmu yu bare di ko teewe yàgg ci ñëw ànd ak suñu ay njaboot loolu daal la ñuy wax. seetaan ngeen burdu yi ba ci xadara tey bi tey mën nañ wax ne fukki fan burdu yi bari na ay njàngale tey boo ko doon suivre yan njàngale nga ci jëlee. wax dëgg yàlla jëlee naa njàngat mu bare bare jëlee naa ci yar ci teggin. jële ci xam-xam jële ci topp jële ci ndigal yooyu yëpp wax dëgg yàlla jële naa ko ci xadara tay bi nag wax dëgg yàlla ko fekkee sa tooy na mm. ndax namoon nañu ko mm. man bi ma taxawee fee sànq dama jooy mm. ndax wax dëgg yàlla namoon nañ day ñaan yàlla yàlla may ñu fekk ay xadara yu bare bare bare ndax lii dañu ko gëjoon gëjuñu ko gis waaye dañu ko namoon waaw dañu ko namoon waaw kay jërëjëf